moom ci cadre fayu nañu génn Barthélemy Dias dootul campagne est que kilifa gu toll ni moom waroon na waxee ci anam boobu. waaw bu fekkee ne justice defut kiyam loolu mooy wax ji mooy xam nga bu fekkee ne Ousmane ko day wax kàddu yi raw ne maanaam suñu police doo a jóg réagir waroon na koo teel a wax mais nag fayu baale laa ko sént ci moom. yonent bi euh, dem nañu sànni ko xeer mu baale mais Ousmane du moom lañ sànni xeer du moom la ñu toj boppam du moom lañu ci njabootam lañ ko toj yonent bi bi muy wax yàlla da ko wax ne ko yàlla ci boppam da ko buñ la dóoree fayul parce que yaram ci ñëpp lay metti xam nga tey ki ngay baal mooy koo xam ne wóor na ne boo ko baalee du ko defaat waaye koo xam ne bu ko baalee da koy defaat ñàkk wax ak moom moo tax muy jaay ak reewande mais nga jóg dóor ci taabal ji ba ñu taxawaat lan moo taxaat léegi démb lu xew xam nga lee barki démb la léegi démb lu xew dëkkub dóore fa koy tas bu nit di jaay réew dañu ne boo demee fenn màtt borom yi bañ réewande la foo dem ñiy màtte signal say gëñ bañ xam ne am ngay bëñ xam nga wan nga ne ko taxawoon na ne day ñëw nga ne ko maa ngi koy xaar campagne caravane conférence de presse ba nga doon def ji seize taxawu Dakar defoo ko. ça veut loolu mooy état. waaw non maanaam. waxuma sax état. en dehors de état maanaam li tax réagir état mooy état dafa war a di def li ñuy wax prévention parce que bu ñu deful woon nit ñi lañ leen def ndar maanaam Ousmane Sonko du def lii mu def mooy kon bu état teeloon a jóg ministre de l'intérieur ñu da xool caravane Barth fuuye leen gis la ca nekk ña ca nekk te waruñ caa nekk ñu génne leen kon ñoom duñ dem ndar bay jàppee di dóore parce que gis nañ leen biñ demee euh, Tamba ay garde corps am ñoo jàpp kii di leen di ay nit di dóor ak di nangu seeni jakarta fa lañ ko gis jëf jooj ñu jëf moom lañu ñu yóbbuwaat ndar te reewane gi mu doon dofuñ nag danga am Assane Diouf nga dégg mu naan waaw commencé di lay naan dama joxe euh, euh, spécimen laa doon def su amee ku tooñ nit nag tooñ góor yàlla ba mu li ma man mooy àtte dama doon àtte kon yaa ngi doog a wax li Barthélemy taxaw biñ paree muy doog a mbaw yéen a ko wax yéen a ne le saint à bois caravane passe ah, bii sax nag bi bi bi bi bi bi caravane bi di di paase di jàll sax mbawut caravane bu ñëw na ba jàll bay tollu si séedoo muy doog mbaw comme ni xaji siwaawaay di def campagne o caravane o conférence de presse ba defoo ko nga koy doog def fële reewut da doon reew reewlu rek hmm. xamoon na ne baayam ñëw na xam moo doon wax naan seen baay ñëw na waaye moom dafa fàtte woon a wax ne suñ baay xam na ne baayam moo ñëw li doon jaay waaje ko ëpple amul fit amul doole bu amul doole da ngay yaru d'accord dañoo gis ne président Diomaye le fait mu falu démocrate qu'il am na foo xam ne bëggu faa yegg bëggul def ñuy niru ne nangam nangam mais loolu ñoom bu fekkee ne loolu la ñuy jël pour bëgg wane ne état daa faible wala pour bëgg ne nang di def lu leen neex ay nit di taxaw di jox joxar bi ay nit di fe ay mag di taxaw di fen fen yu rëy xoolal Cheikh Yérim sekk fen yu rëy yi mu fen bu yàggul ba giñ police wala nangam nangam kooku dañ ko war a woo. ah ñu bari ñu ngi naan comprendre lu tax ñu woo Ameth Ndoye bàyyi fi Cheikh Yérim. ah alors li mu wax moo gën a. léegi nag loolu mooy li Ousmane Sonko wax. loolu lan bañ ku la wax parce que waa ji dañ koo xam nekkoon yi ci nangam nangam no boo fi reewantalu dañ la war a teg yoon loolu la fi nekkee hôpital. hôpital yi dañu fi nekk pour faj nit ñi pharmacie yi dañu fi nekkee pour jaay garab police daf fi nekk pour ku def giraawaale ñu fekk taxaw la jëli la justice dafa nekk ci ku jàdd yoon ñu teg la ci yoon jaarale la yoon bu fekkee ne dañoo xool ne da ngaa réew koy defaat nag ki ngay baal mooy koo xam ne boo ko baalee ba pare mu taxaw mais am na ñoo xam ne bu ñu waxee ba ba ba ba wax lu leen dugal da ngay xool pen ba ca gën a rëy nga teg ko ba pare ay yambar lañ moom lañ fi tëj ba ñam di metti nee na muy jooy di wax bañ génne ko ci kaso bi. mu doog ko def Macky Sall baayam ca la ne pat waxatut kii ñëw nag li ñuy wax délai d'autorité mooy respecté wuñ ko ñoom ñi di wax te gis nga koo dégg mu naan jomaay euh, euh, laa bëgg Sonko nangam ab saytaane la ab tappalekat la bi nga fi taxawee président jomaay bi ñu fi bindee texte boobu collégialisation de la magistrature te mu la li mu wax mu yàgg dëgg parce que dañ leen a jëloon ñoom xam nga waxuñ leen ne ay colossar lañ dafa am kuy jóg di leen bëgg jaar ci yoonu colossardise leen muy mag Sall def na fi lu ne amul lu mu fi defut justice injustice rek la fi teg loolu bi ñu ko jàppee ñan ñoo doon wax naan dafa réew wala dafa nangam nangam wala dafa nàngam nangam di ko sànni kàddu ñii di la xeeb ñii taxaw fi naan président bu jàkkaarloog euh, bu jàkkaarloog Joe Biden nag bu jàkkaarloog Macron lii nit ñi di soxla ba mu tax leen a jóg muy nguur ba mu tax ñuy jaamu ay président bay tax ñuy fen ak a tappale loolu bi Ousmane ko amee occasion jot ci dalaa joxoñ parce que nag lii mi ngi fi xew dafa fal ay maire fal ay député fal président kon bu ko soxla woon doo ci jot su bëggoon mu doon gii Marius Sagna du doon yow gii lay doon président de la république élection falu ko révolution ko fal loolu laa bëgg ñu xam lii li ko fal du élection yam ci révolution la révolution bi dafa am ku ko togg dafa am ñu ko togg waaye dafa am ku ko togg gën cee fis ba yegg si fii loolu bu ñu ko defee li tax may wax loolu nag illustration bi ma ciy joxe dafa leer mm-hmm. Ousmane Sonko mm-hmm. bi ko nit ñi jàppee ba mu xam ne dañ koy jàpp xamoon na ne anticiper naa at xam ne fii lañ jëm ak moom mu teg ay stratégies yoo xam ne buñ tee yeggee lii moo koy fegal fegal aw ñoñam te man toog naa ak yow ba tàyyi wax la ne feek Pastef defuñ la telle sorte que maanaam Macky Sall sànq Sonko ak bañ koo sànq yem ci moom te sànq ko gën bon ci moom su suñu yeggut foofu rek du am guerre cause mel ni waa ji dafa maa dégg bañ ca demee mu def enregistré ay vidéo denculu ko ñu xëy benn génn beneen génnaat ñu commencé am problème ci bu ci topp parce que giraawaale yu bari yi ñu fi def loola mën naa la ko jox misaal waxuma rek ñi Ousmane Sonko wax jëli leen fiis wala ñi mu pareeneloo wala wala wala waaye da ngay dem sax gën a yaatal sang bi ba mu dem ca Boubacar kamara ak Déthié Fall te dem na ci ñeneen sax même bu dul woon ñooñu sax doon keneen parce que Ousmane li mu bëggoon mooy changement ni mu mënoon a nekk Diomaye noonu la mënoon a nekk Déthié Fall kon candidature Déthié Fall mën a gën a dëgëral bu Boubacar kamara wala Boubacar Camara dëgëral bu Déthié bu Déthié bu bu Boubacar parce que ñoom jàll nañ ba pare ànd dooleel. bu Seex Tijaan Jéy bu Habib Sy Habib Sy ba pare ñoo ñoom ànd dooleel bu Seex Tijaan Jéy bu Seex Tijaan Jéy ak seen candidature yooyu ànd dooleel bu Basiiru Joomaay Jaaxaar bu président Basiiru Joomaay Jaaxaar ànd ak yooyu dëgëral bu Ousmane Sonko mu dëgër këcc waaye la ca doon ñuul nag mooy bay daa wees mbuus ci constitution bi mooy constitution bi nañ ko mujj defaree ak yooyu moo ko ci mujj génne mu ne sama jëmmi bopp warut a tax ñuy jalgati constitution bi yegg ci ñaan Habib si ne ko ñaanal sax sa mbokki PDS si bu ñu dugal yow yaa am intérêt à agir pour dugal waaye wax leen buñ dugal yàlla defal ñu sutura waa kii Macky Sall toggoon na foo xam ne waxal na boppam ne su ngeen ma toppoon Karim bokk Sonko bokk Karim Wade a tout fait pour bokk donte taxu koo bokk egg ci sax giiñ ay magistrat waa conseil constitutionnel dañ leen a ger ñaar waaye ñaari sax mujj doyut ñu boolewaat te kilifa gi baajo Camara na nga koy xame mooy dañoo yokkal ki njiite OFNAC basiiru Gueye ay prérogative mu sañ a jël nit def ko garde à vue boobu xam nga lu ñu doon visé. Mm-hmm. suñu xëyee bëgg conseil constitutionnel dàq affaire yi mu bañ dañuy xëy ne dañoo jalgati woo leen ci justice garde à bi jàpp leen léegi bu ko defee bu ñu desee ñeent ñu daal di woote ne léegi conseil léegi cour constitutionnel la ñuy def loolu moo doon kiyam mais Sonko mi bañ moo yàq seen dil lu tax Sonko bañ parce que daa wóolu joomaay ne Sonkooy joomaay joomaay mooy Sonko moo ma gën a jub def naa impôt quinze ans jëlal ma kenn fukki dërëm kii moom a gën a jub joxoñ la moo tax ku taxaw naan président joomaay dama laa bëgg te dama bañ Sonko bëggu la kala bëgg mooy Ousmane Sonko pour wax yii ñuy jéem a du jàll ak président Diomaye bi ma xam waaye seytaane waxul dëgg yàq na xel parfois da ngay toroxal seytaane gis nga na nga toroxewaloon seytaane ba bi nga jàkkaarloog journaliste yi wax ne sama siège bi sax bu mu ko piis na ne ko jàkk yu noonu ngay defaat yu gën a taxawaat parce que ñoom du ñu tekki seen i jàjj waaye saa su nekk defal lu leen troxal gis nga diggante Mamadou Dia ak Senghor li ci Sénégal yàqu ci seen tasaaroo li mu ci Sénégal ñàkk lu ko raw la ñàkk ci diggante Idriss Seck ak Ablaye waaye nag ñooñu ñëpp lañ ca ñàkk su diggante bi xajamee lu ko raw fa la Sénégal di jaar te loolu ñaanalu ma ko benn yoon Sénégal ak ma Sall ak Alioune Badara Cissé. voilà ba ci ak Macky Sall Alioune Badara Cissé non Macky Sall Alioune Badara Cissé sax Alioune Badara Cissé ministre affaires étrangères la. mais ko wax dëgg. waaw waaw waaw daan na ko wax dëgg mais seen tàqalikoo deful deful benn benn kii bi. effet quoi benn effet bi. ak yooyu bi nga xam ne maanaam mooy tàqalikoo Wade ak euh, Idriss Seck wala tàqalikoo euh, Senghor ak euh, Mamadou Dia. Mm-hmm. parce tey. ñu taxaw si fan ay noonu Sénégal yu bari yu alimenté nag lu ñu tekk seen jàjj maa ngi gis ñu ne union européenne dafa ne du renouveler waat contrat yi nga xam ne moom. ci wàllu napp gi xam ci wàllu napp gi. <laughs> waaw mais loolu ku mu koy def.